waaw am na jot nañ si waxtaan ci lu mel noonu loolu moom lu loo xam ni la ab dégg nañ ko lu am la te te li si war def yëpp li si war li ñu si war def yëpp dinañ ko def dañuy bàyyi liy jàll rek mais li ñu si war a def yëpp nañ ko def loolu moom lu ñu naqarlu la ndax te sénégalais ay sénégalais bu ñuy wax vraiment war nañ mën a waxan ci teggin ci ak yar te lu ci wàcc rek moom ñun ñu ngi koy waajal pour pour lijjanti ko. non loolu yegguñu si bu ñu si après bàyyi ñu loolu information ba dossier bu foog ñu toog ci liggéey si ba pare ñu waxtaan seeg moom ñu doog jël décision mais am na lu mu ñu waxtaan ñu jot a waxtaan moom ñun ñun suñu biir loolu nañ ko lijjanti après. déferment bi tamit. Euh, déferment bi euh, waxtaan nañ ak gendarmerie bi commandant gendarmerie nee na ñu déferment bi suba lay am ndax tey guddi na pare mhm. donte jël si ko tey si 11h sax dañ ko déglu dañu bàyyi ba ngoon ñu doog ko déglu ni ko suba lañ lay déférer. muy loo xam ne naqar lañ la doon ndax bu fekkee liñ koy toppee lu am la boo ko jëlee onze heures am nga une heure de temps wala ba midi pour entendre ko bi ñu sa pay yóbbu ko procureur mais dañ ko fay fanaandoo tey ba suba doo ko fa yóbbu